713 59 24 xar yëpp xar lañ waaye laadum da ciy gën te buñ nee góor ngóoraa tax. point de la rédaction mbokki internet yi seetaan sunu Sunugal 24 ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax dikkati nañ ci niñ ko daan defee tous les jours muy seen jotaay yu ñuy amal eh, di ci waxtaanee lépp loo xam ne si ni actualité la di xew fii ci réew mi moo xam fay divers la Moustapha mbay la ci àndal nuy naa la bu baax mu Moustapha. maa ngi lay fay Cheikh Mahfous di nuyu képp koo xamante ne da ngay faral di ànd ak ñun si sunu jotaay gi ñuy amal tuddee ko le point de la rédaction. mi ngi noonu ñu fas yéene waxtaanee ci nouvelle restriction yi nga xamante ni indi nañ ko ginnaaw bi ñu gisee ni euh, corona bi kaay gën di yokk ñu jëmale ko nag ci waa li nga xamante ni ñoom ñooy waa culture muy artistes yeeg yu noonu ak boîte yi nga xamante ni tëj nañ ko ba ñoom daal dinañuy mer ba futtu euh, Moustapha donc xam naa ni ci semaine bii du ñàkk na sax ñoom dinañ am ab toogaat ñaxtu fële ci place de l'obélisque wala ñu koy wax place de la nation donc bu 15 heures jotee maanaam alxamis bi ñu jëm ci lañ koy amal ngir mën a fësal seen naqar ginnaaw bi nga xamante ni génnewaat nañ ay nouvelles mesures jëmale ko ci ñoom maanaam ñu fermer li nga xamante ni mooy boîte yi ak salle de spectacle yi donc dinañ ñoom sax ci information yi am bi ñu xëyee dinañ rencontrer le ministre de l'intérieur muy Antoine Félix Diome donc dinañ ko dinañ ko euh, waxtaanee lépp loo xam ne si ni euh, lu aju ci mesures yooyu nga xamante ni jël nañ ko mu nekk ay mesures yi bu ñu sukkandikoo ci ñoom ay mesures yu métti yoo xam ne si nii daanaka ñoom daal ñu ngi koy joytu ak fu ñu ko mën yóbbu daal ñu ngi joytu Moustapha moo xam mm-hmm. télévision yi la moo xam site internet yi rajo yi la ñoom ñëpp daanaka jóg nañ euh, di xeex euh, wala di méttit yooyu la décision Moustapha nu nga jàngatee loolu nga xamante ni tey jii autorités yi jël nañ ko ngir fermer li nga xamante ni moom mooy salle de spectacle ak boîte de nuit waa euh, mbir dogal la boo xamante ni bi mu wàccee ñëpp ko doon xoolaat ak am na ñoo xam ne sax ñu ngi commencé di waajal décembre bi mm-hmm. yaakaar na période la boo xam ne dafa doon yàlla dafa leen siy dimbal ñu rattrapé mm-hmm. mm-hmm. euh, li nga xamante ne ay aaya la woon te amoon fii mi mbir moo xamante ne bi mu amee lu metti la doon ci ñoo xam ne ñu ngi doon waaj décembre bi ak ni ñu ko doon ni ñu ko doon préparé lépp mm-hmm. lii ñëw daal di daal seen kaw ba mu yaatal mesure bi sax daal ni euh, ci ci ci terrain de sport yi mm-hmm. ak fépp foo xam ne ñi dañ fay daje mu di ko aaye mii loo xamante ne nag euh, tax na ñu ñu samp ci ay laaj xam pertinence su mesure yooyu ak respect bi que nit ñi waroon naa respecté parce que boo gisee bi ko gouverneur lee am na ñoo xamante ne am na ñu leen metti lu ci mel ni artistes yi ba ñu war a leen ñoom ñu ne mhm. dañuy wàcc ci terrain bi daal di ñaxtu mais da leen di comprendre parce que tey jii koo xamante ne yow si spectacle ngay dundee pour fay sa location ci spectacle ngay dundee pour inscrire sa doom ci biir spectacle dafa bëri ñoo xam ne gis nga ki nekk ki nekk ci bunt bi mhm. gardien bi ki ki kii mhm. vidé kooku dañ koy fay. ki nga xam ne day servir dañ koy fay. donc benn équipe la boo xamante ne ak ñi nekk ci ginnaaw équipe mm-hmm. ngi noonu donc du du benn nit kese. Mm. dama yaakaar nag ko dañ ko réeree mbir ba nga xamante ne ñu yaakaar ne benn nit la boo xamante ne dañ ñii dañ koy jàppee ku doon way wayatul rek. Mm. dafa toog këram or c'est toute une équipe boo xamante ñoom ñoo ci souffrir te pour man dama yaakaar ne tey jii coronavirus dafa am lu ñu jàngal. Mm. gis nga jàngoro boo dundee moom pour man neuf mois d'accord kenn mënu comprendre corona bi kenn xam xamu ko fu mu ñu mën a yóbbee uh-huh. mais am na as néew boo xamante ne xam nañ ne ni mu mel Afrique melu ko Europe uh-huh. donc du ma mën a comprendre pourquoi bu Europe tëjoo ñu war a tëju bu Europe tijjeekoo ñu war a tijjeeku bu Europe defee ay uh-huh. restriction ñu def ay restriction dund nañ première vague dund deuxième vague deuxième vague bi dañoo tëjuwaat ñun dañoo war a dem ji jëm tëju ji man gëw ma loolu man dama yaakaar ne lu nekk da koy jéem a par rapport à une situation donnée am na loo xamante ne am na nañ jéem a xool mën na nekk dundal nañu première vague dundal deuxième vague ku ñu ne troisième vague du am quatrième vague ba ci cinquième vague kenn ñaanu ko yàlla mais lu nekk mën na am ak corona bi. Mm-hmm. lu nekk mën nañ koo xaar ndax da def foo toll di jël ay restriction ndax da def foo toll di aaye nit ñi def seen ay activité mënul bu teggul seen championnat yi mais xam nañ lii li nekk ci ginnaaw ak li fi leen coronavirus ñu tijji ko. Mhm. daal def def seen ay mbir xool nu koy encadré dem mais pourquoi pas tey jii man je me dafa am ay contradiction tamit il faut ñu relever ko tey jii mënoo génne léegi boo yëndoo fi gis benn tata bu fees dal ni ñuy dancaloo. Mhm. mais loolu tey boo demee Grand Théâtre nit ñi duñ dancaloo wee noonu. kii dee toog fi kii toog fi kii toog fi. Mhm. mais boo jógee sa taaya nga dem ci biir jumaa yi nit ñi léegi espace espace espacement bi ñu doon wax naan par benn mètre benn mètre léegi gisatoo ko mm-hmm. ñëpp dañuy teg mbagga mbagg mbagga mbagg ñu julli dem ku nekk dem ñibbi mm-hmm. donc rassemblement yi ñuy wax di ko aaye fii di ko aaye fële di ko aaye fële mi ngi am ba léegi ci dëkk bi mm-hmm. nga dem ci marché yi noonu la demee masque yi ni ñu ko doon takkee ni ñaa ngi takk masque mais gis nañ ne ba léegi am na ñoo xam ne ba léegi takkuñu masque donc pour man mbir la boo xamante ne il faut que ñu a mhm. waxtaan ak ñoom acteur culturel si askan wi la ñu bokk ci mhm. nit ñi la ñu bokk ñu xool naka la ñuy def encadré bañ def seen ay activité mhm. il n'est pas dit que bu ñu ko defee rek forcément nit ñi dañuy dànkaloo mais yow da ni nga ni nga waxee dafa mel ni euh, euh, tëj li nga xamante ni moom mooy yooyu yooyu la place du du non xam nga mbir dañ dañ koy waxtaanee. Mhm. pour man mbir dañ koy waxtaanee. décembre bi ñuy tijji euh, doguma la bi ñuy tijji dañuy waxoon ne nit ñi mën nañuy demaat ci seen activité mais tout en respectant les mesures ñu ñu ñu ñuy euh, takk masque yi di raxas loxo yi utiliser gel mais dafa mel ni nit ñi dañu fàtte loolu dañu ñëw ci affaire ci ci seen activité rek euh, jëlaat yëpp sànni fële donc seen loolu moo waral tamit li nga. xam gis nga gis nga respect des mesures barrières gis nga respect des mesures barrières Mahfouz bu demee ba doon loo xamante ne dafa doon lu contraignant maanaam bu doonee obligation te doonul adhésion problème mm-hmm. dafay am man damay takk léegi sama masque parce que da nekk ci oto nga séen ñu ne gars takk leen takk leen policier baa ngi si kanam bu rombee ngeen wàcceewaat mm-hmm. mais loolu ban ban njariñ bi ko taxoon a jóg est ce que amati na ki donc adhésion la war am pas mu doon benn obligation boo xam ne ku takkul masque da ngay am problème ñu commencé woon génnee fay amaan nu ñu doon yëpp gis nga buñ buñ buñ duggee ci man pour man du loolu moo koy freiné mais da ngay fexe ba am benn communication boo xamante ne dafay doon communication pour un changement de comportement communication boobu moo la ciy dimbali mais pas nga jéem brandir le bâton ku takkul masque ma dóor la yet wala takkul leen ko indi indi benn kii boo xam ne du dem parce que nit ñi tey ji am dañ corona bi mu fiy doog a ñëw tey jii euh, suñu fàttalikoo le 23 mars le président Macky Sall décrété état d'urgence mm. booba ñu ngi amoon 79 cas zéro décès bi ñu demee ba 31 mars si la yàlla ndem si yàlla Pape Diouf daal di génn àdduna donc 79 cas zéro décès tey ñu ngi ci 17000 cas. Mhm. ñu ubbi ubbi nañ école yi. ñi am ñi am ñi am plus de 70 par par jour. ñi ah. am plus de 70 moyens yi boo ko foofu lay nekk. ak ak les ah. woon ay cas communautaires. gis nga on se retrouve avec 50 ay par jour. 50 par boo boo defee moyen bi genre yooyu ngay am. tey jii coronavirus bi li ñuy wax ne nii euh, ñu ngi am 350 xaw ma 60 quelques décès quelque chose comme ça benn benn benn semaine rek ay 480 jeunes dee nañ ci gaal yi. benn semaine te boo dajalee période bi ñu doon affaire immigration clandestine ñi dee ci gaal gi ëpp na c'est des milliers mm-hmm. ay milliers de jeunes dee nañ ci gaal gi est-ce que coronavirus yóbbu na ko donc bu ñu néewal d'accord ba kenn bu dee dëgg la ñëpp dañ koy regretter mm-hmm. mais am na foo xamante ne jàngoro ji waruñoo nangu Europe fi ni ñu ko taawee mu yóbbu ñun ñu yóbboo ñu fa waruñoo nangu loolu tey ji suñu sportif yi war nañoo yëngatu mais pourquoi noonu ñu ngi ñu ngi ciy wax mbër yi daanaka euh, koo ci tàllal micro wala les les acteurs de la lutte koo ci mm-hmm. tàllal micro rek loolu lay wax ñun kañ ne ba kañ ba kañ euh, depuis boobu ba léegi parce que ñëpp tijji nañ fii mais ñoom jot sax tijjiwul sax ñu ngi ñu ngi ñu ngi ficelé ay combat mais ba léegi amul benn combat boo xam ne suñu tey man bu fekkente ni dañuy def combat yi sax a huis clos ñu ñu def ko ñu ñu ñu seetaan ko ci suñu ay téléphone su fekkee mm-hmm. ñuy fay sax parce que tamit lu ñëw il faut nga jéem a adapté ak moom euh, jéem a xool ban ban stratégie ngay teg pour ban ci tamit xoolal liy dund ci làmb lépp ni mu toll. Mhm. ñoom ñëpp ñu téye leen pendant neuf mois nga toog di xoole yor war a yor sa njaboot war a war war a euh, dund. Mhm. donc dafa dafa nekk loo xam ne si lu metti la te ñi nga xamante si ñoom ñooy euh, autorités yi dafa dafa mel ni bàyyiwuñ ci xel. non dañ ci war a bàyyi xel dañ ci war a bàyyi xel parce que bul jàpp ni rek. Euh, xam nga parfois aspect sanitaire dafa am solo trop mais aspect sociologique bi il faut que ñu si bàyyi xel. aspect sociologique il faut que ñu si bàyyi xel mooy suñu économie warul nërmelu warul war waruñu yóbbu fenn foo xamante ne ñun. tey jii dañuy dañuy dañ xam lañ naan di moytu di moytu ba faf moytu gi gaañ la te jàngoro ji gaañu loolu dañ ko war a moytu tamit. dem ba gis nga li ñu doon wax dugg ci couvre-feu dugg ci état d'urgence ba ay xiif nar a rey nit. bekkoor gi nar a rey nit. ñoo xam ne corona rey nit ñi génn di di y révolté wu yooyu mënoon naa jàngoro ji bu doon inverse moo am bu doon Afrique la la la la la la béjjén am doole. Europe du ñu mës a def état d' donc nga xam ne kon bu doon fii la njëkkee bu fi njëkkee woon tey jii mesures yu ñu jël ak yooyu yëpp du leen ci fekk. parce que gis nga mbir du d' bi muy doog ñëw ñëpp a tiitoon kenn comprendre nu mu demee. mais première vague bi ñëwee ba am nuñ ko jàngatee pour man war nañu réadapté façon bi ñuy xeexee. Mm. gis nga preuve bi koy gën wane sax mooy nit ñi tiit gi ñu tiitee woon. tey ji balaa nga doon xam tey ñu xëyat dañoo décréter état d'urgence wala couvre-feu nga xool askan wi naka naka naka la réagir. du yomb de parce que dañoo dem ba euh, même sax nit ñi nit ñi mm-hmm. doon informé léegi communiqué bi day génn nit ñi toog jàpp seen jàmbur. duñ ko sax liir kenn du ko sax liir doo gis sax ku ne ñaata kaa or ñun ñi xam ne dañuy yëngatu ci wàllum information foo toll dañu la ne saa ñaata kaa lañ am tey wala mm-hmm. tey kaay nga na am na ay information ñu am ci jàngoro ji information yoo xamante ne yaakaar naa ne moo tax du ma ne ñu ñeme ko mais ñu démystifier ko tuuti parce que jàngoro ji kenn xamu ko kenn ñeme ko mais tamit dafa war a loolu tamit suñu njiit dañ ci war a ànd pour man assoupir tuuti wàññi wàññi mbir mi ba nga xamante ne Euh, nit ñi du du du du lor askan wi. Mm, mais ñi nga xamante ni moom mooy artistes yi xam naa di ñëwaat sax ci ci ci ci yi mooy mooy mooy euh, làmb ji ñu xam naa moom la ñuy tëjee parce que dama ci brossé woon tuuti rek comme tuddoon nga affaire sport ak yooyu mais euh, ñoom dinañ def sitting jeudi bi ñu jëm fële ca place de la nation est que jàpp nga ni tey ah, bu bu ñu defee boobu boobule sitting nguur gi war na mën a dellu ginnaaw ci ci ci mesure yi mu jël. Mahfouz ki bëgg day wéqu. kii bëgg a dee weexu ñoom li ñu am di ci suturloo tey jii da nga koy xool ci bureaucratie ak ñeen ñeent am na ñoom ne seen liggéey ku leen ko doon bëgg xañ ñu génne taxaw ci mbedd mi jàmmaarloo mm-hmm. am na ñoo xam ne ay millions ñooy naaw fi ñu toll nii mm-hmm. am na si artistes yu mag yoo xam ne ay millions la perte donc li loolu ñu perte kan moo leen koy fay kan moo leen koy remboursé kenn mënu leen ko remboursé état bi mu leen fi doon jéem a dimbal lu dimbali yow ñu bokk te encadrement boobu tamit li ko li ko war mooy nga wàññi mbir mi man dama gëm ne dama gëm ne de tey ji fu mel ni grand théâtre ku gis waxuma mm-hmm. ni grand théâtre ak yeneen saal yu ci mel ni ay Sorano am na saal yoo xam ne mën nañ koo organiser nit ko dugg def prestation génnaat yaakaaruma yenn problème yi am fa parce que bu ko deful foofu nit ñaa koy def feneen li ngay gis si tata yi moo gën a pire loolu li ngay gis si marché yi moo gën a pire loolu li ngay gis si école yi parce que bu ñu fàtte ne 4 millions d' am mm-hmm. te 4 millions yooyu ñi ngi dem booy nii la ñuy ñett si table banc bi mm-hmm. wala ñaar ci table banc bi ñaar mooy ñu ndaw yi mais ñett ba loolu tey jii kan moo mën a firndeel ne eh, respect xamante ne yow boo dee acteur culturel wala ngay suivre culture da ngay jàpp ne lii kat kenn xamul lu muy nduru finalement dafa mel ni nag mm. euh, genre single lay doon et pour man yaakaar naa ne war nañ ko mën a corriger parce que perte perdre guñ dara et puis corona baa ngi xamuñu kañ la fiy jógee. ñu ngi wax deux deuxième vague troisième vague buñ fàttalikoo grippe espagnole bi. bi nga xamante moom lañ jàpp ne mooy pandémie bi gën a soxor ci àddina bi. Mm. bu c'était en 1918 boobu bi mu amee duré na deux ans te trois vagues la defoon. mu am 500 millions contamination def 50 millions morts kooku tey jii deux ans la durée corona bi lan moo ñu wax ne du fi def at yooyu. Mm. donc mm. pour nga gën a xeex pour nga bëgg xeex pour nga réussir xeex bi ngay am ak moom bu jógee da ngay lan mooy ay ato. ato mm-hmm. ko rek mu ñëw rek nga daw de affaire foog nga ñeme ko songo ko xeexaw moom te loolu li mën a def mooy bokk na ci ñi nga xamante ne eh, ñu xool naka la ñuy def dimbal leen ba ñu mën a dund en tout cas lu ci euh, euh, li nga xamante ni lu leen métti la muy tëj gi ñu tëj seen barabu liggéeyukaay yooyu nga xamante ni moom rek la ñuy yaakaar pour dund euh, donc xam naa nag après dinañ ci dinañ xam lan moo ci xew ba xam autorités yi dañuy dellu ginnaaw wala dañuy ñëw ci vaccin yi parce que vaccin yi may information yi ci am sax nee nañ xam naa ni euh, mars mars 2021 la Sénégal di jot ci ay vaccin am mhm. euh, balay loolu xam naa ni ñu ngi ci euh, décembre donc fii ak 3 mois dinañ ñu jot vaccin bi mais tey yan ban ban sensibilisation wala ban communication lañ war a def ci vaccin yooyu bu nga xamante ni tey nit ñi dinañ ko accepter parce que vaccin yi ñëwagul mais bi ngi jur coow lu bëri mhm. ñu bëri fi mu ne nii wóoluwuñ vaccin yi nga xam ni jóge na bitim réew gis ci Facebook yi gis ci internet bi euh, de façon générale mu nekk loo xam ne si dafay tiitalaat ñu bëri nee nañ kenn du leen ñàkk. Mhm. kenn du ñàkk seen doom loolu tamit mbir la. waaw xam naa ne bu ñëwoon fii moom du ma ne du du du kenn du ñàkku waaye dina néew ñu ñàkku mhm. parce que Sénégal fii am na ñoo xamante ne déjà ñoom dañoo catégorique ne ñoom kenn du ñàkku lu leen jege sax du ñàkku parce que dañu am ñu am seen ay raison mhm. boo xoolee tamit coow li mu jur la tamit ak ni mu demee ak ni ñu ni nga yaakaar ne parce que vaccin bi mënuñ ne coronavirus janvier la feeñ ñu ñëw ba période euh, ñu ngi ci ban mois décembre mm. ñu génnee ay vaccin yoo xamante ne ba ci ñoom ci biir chercheurs yi am na ay féolo yu si am mm. am na ñoo xam ne jàpp nañ ne efficacité vaccin bi ay caaxaan moo ci am parce que efficaceul mm. euh, du protéger na mu waree woon am na ñu jàpp ne durée bi dafa gàtt durée bi dafa gàtt am na ñu loolu même bu dul durée bi sax tey ji am na vaccin yu bëri yoo xamante ni fii Afrique dañuy am problème conservation bi parce que chaîne de froid bi pour ñu respecter ko c'est tout un problème bu ñu demee yenn vaccin ñoo la moins de 17 degré mm. xam nga foofu tey pour nga garder ko fi Sénégal c'est tout problème donc même fii bu dee côté Afrique sax ñoom côté boobu ñi ngi koy xool ban vaccin mooy doon bi gën jàppandi surtout côté côté côté côté conservation bi ak côté bi ñu ko mën a garder. Mm. mais bu ñu dellutee ci ci ci mbirum vaccin pour man bu ñuy wax vaccin suñu dëkk yu mel ni ay Sénégal ak yeneen dëkk yi ñun ñun këyitu vaccin sax ñun waruñu ko woon laal. Mm. tey jii ndax yaakaar nga tey jii France bu ñu amoon benn maladie boo xamante ne defagu fa 400 morts. Mm-hmm. au bout mois xaw ma 9 mois vac euh, au bout de 8 mois ou bien 7 mois maladie bi def fa 400 morts ñu leen di wax waxi vaccin loolu nduruwul yebaate. Mm-hmm. période boo xamante ne am na yeneen jàngoro yoo xamante ne ñi ngi rey plus que coronavirus fii ci Sénégal est-ce que tudd nañ vaccin ci côté yeneen jàngoro yi pour man pour man l'urgence pose pas ñoo urgence ñi ngi dee ñi ngi dee kenn bàyyiwu ci xel ñi chronique yooyu ñi ñaa ngi dee te bàyyiwu ci xel pour man urgence vaccin sax mënul posé topp corona topp corona topp ko d'accord corona mi ngi rey d'accord lu am la hmm. mais urgence pour man ay téeméeri junni ay téeméeri mort ak. ay 300 300 mort 400 mort 500 mort on peut comprendre. Mhm. mais dëkk boo xamante ne mhm. ko yàlla mais nga bëgg ne am ak bële bële bële soxlaw ko li war mooy ñu xool naka la ba xeexee corona parce que demoon nañ fi benn jamono ba wàcc fi. te kenn pikiruwul mhm. bañ am fi 3 cas. est-ce que dañoo vacciné donc vacciné wuñu donc buñ boobu buñ buñ ko toppee mooy respect des mesures barrières xool naka la xeexee di di endroit yi te mm-hmm. góorgóorlu bu baax a baax coronavirus dañuy abal te du ñu kenn mm-hmm. moo gën ñu lay piqûre piqûre boo xamante ne Europe lañ ko defaree xamoo lan mm-hmm. paye ko loolu c'est à moo tax pour man daal mbirum vaccin bi sax man c'est un débat boo xam ne waruñu koo sax poser d'accord ñu daal jàll ci leneen mu waaye ba léegi ci affaire corona la ñu des ah, ak impact yi nga xam si ni ah, mi ngi koy def jamono bi tudd naa ko léegi ñoom ñoom tamit sonn nañ Moustapha donc ñoom aussi ñu ñu ñu ñu waxal leen ah. bien vrai que ñi ngi wax ah ñi ngi wax euh, ci plateau yi ñi ngi dem fu nekk di wax euh, pour ñu tijjiwaatal leen seen làmb ji ñu mën a amal seen ay activité parce que tamit ñoom moom la ñu yaakaar euh, ngir mën a dund donc mu nekk loo xam ne si et puis liy dund ci làmb bëri Moustapha hmm. ñu xool ñaata mbër moo fi nekk ñoo fi nekk déjà bi bi corona amul rek dañu amoon problème hmm. pour ñëpp bëre parce que hmm. li nekk ci écurie yi dafa bëri ci corona bi ñëw VIP yi sax mënatuñu bëri. Mhm. donc c'est c'est un problème euh, te lamb li ma ko waxee léegi li nekk ci ginnaawam dafa bëri parce que stade bi boo demee pratiquement euh, la fay jaay ay jaaykat rek jaaykat ñi nga xam ne si ni tey moom la ñu yaakaar pour dund. Mhm. ñiy jaay brassard yi ñi nga xam ne si ni tey ñooy ay t-shirt la defar ñooñu ñëpp dañ ci dañ ciy yëg ci seen dañ ciy yëg seen bopp donc suñ ko tëjee tamit depuis boobu ba léegi waxuñu ci lenn lu ci jëm donc dafay nekk dafay nekk un problème te je pense am na fi jotoon a def muy ak ak ak situation yi nga xamante ni tey moom la ñu ne bu fekkee à huis clos la ñu koy def mbër mi dem euh, euh, au euh, ñaari mbër yi dem ak ñi mi accompagner ak quelques yoo xam ne si ni ñoo fay nekk pour bañ a remplir stade bi ñi ci des ñu ñu jënd par pay-per-view mën a mën a seetaan làmb ji ak fu ñu mënti nekk ci àdduna yi parce que loolu def nañ ko fi mu réussir. def nañ ko fi mu réussir eh, lu lu mën a nekk la yaakaar na mais seulement rek xam nga tey ji coronavirus bi mu ñëwee Mahfou dafa am lu ñu jàngal. Mm. dafa ñëw yenn yenn forum yi daan am ak yenn accident yi daan am yooyu yëpp mu jàngal nañu ne mën ngeen koo def te kenn du bouger mm. ba président yeeg di def ay ay rencontre yoo xam ne virtuel lay doon kii dee toog fii kee toog ay conseil des ministres yooyu mu jàngal nañu ne yu bëri war ngeen koo mën a changer seen dundin war na mën a nekk tey ji pour man secteur bu nekk noonu nga war def adapté wu mm-hmm. adap adap adapté wu wala nga disparaître looloo fi nekkoon mm-hmm. ñi adapté mm-hmm. wu loolu nëpp mooy waa Europe ni ñu def commencé tijji stade yi. di organiser seen ay match affaire yi di continuer dem à huis clos ñi dem est-ce que déggati nga fa sax fi ñu toll nii ñu ne la euh, match bi te amul parce que corona moo tax wala bi am parce que yëpp réglé nañ ko. Mm-hmm. parce que bi mooy metti rek. pour man nag làmb ji tamit xam nga làmb na dafa nekk benn sport boo xamante ne dafa duggalaale culture mm-hmm. culture moo ko mooñ mm-hmm. tey ji boo defee làmb te amul public dafay xaw des dafay laaj organisation boo xam ne bëgg sa bopp bi moo koy poussé yow comprendre donc donc du box du box làmb du ah. box du box ngeen toog ni dóor ay mm. dugg bi aar la mm. bàkku bi aar la bëre bi aar la. donc yooyu boo ko ci dindee finalement après lamb day mi doon luñ. ak ambiance bi yooyu yëpp donc mun munoo ko cee dindi. Mhm. donc ñoom pour man seen seen changement du doon loo xam dafay laaj ay jàngat yu gën a mhm. yu gën sori pour. waaye nag bëri. ni ñu def stade yi diñ ko def su parce que suñ ko defoon ñaar ñetti yoon rek dañuy adapté. Euh, di di ban di bëri ci sax cest à mu am billet. ñu am le fait que wul man xam nga lu may d'accord jaay moitié place yi. waaw ñu mu am espace bi ñuy duggee. Mhm. ñu xool porte yi naka la ñuy def parce que lépp vouloir c'est pouvoir. tey jii mhm. lépp il faut que il faut que il faut que il faut que nga il faut nga xool nooy nooy nooy def nooy organiser woo jéem ko pour mu mën a nekk. Mhm. mais mais boo jéemul defoo du mën nekk tey ji boo xoolee nooy organiser wu euh, bi nga xool naka nga koy réduire naka ngeen def mbëri nga defal leen test avant nga xool di nga di nga def ne pour man euh, disposition disposition yëpp di nga ko jël ba nga xamante ne làmb ji di nga ko def te te te te te problème du am en tout cas war nañ ko war nañ ko mën a défendre parce que ñoom sonn nañu wax dëgg yàlla te xam naa ne ku leen defal loolu tamit ñu jël ndax euh, làmb rek la am bëri la ñu am moom la xam mooy seen liggéey te nit daanaka boo ko xañee liggéeyam pendant neuf mois nga mu toog liggéeyul da jafe-jafe ñoom aussi nañu nañu nañu gën a waxtaan ak hmm. autorité yi rek euh, surtout ministre des sports des sports Matar Ba donc nañu waxtaan ak moom bu baax a baax ñu jéem a trouver ay solution ngir seen activité boobu mën a mën a mën a nekk fa mu nekkoon hmm. ñu doxalaatu xale yi ku nekk gis ci sa bopp looy tàggatoo mu sa Moustapha li ñu seeroon ci waxtu jaax na li may tàggatoowee rek mooy di ñaax ñi nga xamante ne mooy suñu askan wi rek ñëpp ku nekk di wéy di sàmmante ak mesure barrières yi corona baa ngi fi ak lépp luñ ci ti wax ak lépp lu ñu ci lu lu lu comportement bi li ñu ni ñu ko ñemee képp bu ñu fàtte ni am na ñoo xamante ne dañuy dund ak ay jàngoro chronique ay maladie chronique lañ koy wax ñooñu corona bi du leen lebal donc nañuy aar suñu bopp aaraale leen su ko defee rek ñu ñëpp muccandoo yàlla dimbalu ñu mu gaaw fee jógee parce que lii ñuy wax ni yëpp moom rek mooy musiba bi moom rek moo fi ñëw gànna ñu indi problème. Mhm. donc nañu fexeel ba def suñu kéemtalaay kàttan mu abal ñu. ayca mi ngi noonu mbokki internet yi di euh, ci le point de la rédaction man ak Moustapha Libas Mbaye moo nekk ci réalisation bi ak technique bi ñi nga xamante yéen ñi seetaan nekk ci biir réew mi ak bitim réew ñi ngi leen di jaajëfal ci fidélité bi nga xamante ni yéen a ngi koy renouveler tous les jours euh, di leen jox dig daje suba incha